tolluwaay bi ci wàllu politique les ne meeku moo di dañoo xëy gis ko ah, mu bind ci ah, réseaux sociaux yi ne moom ah, gàntal na ab yëngoom ci wetu ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa APR loolee nag ak Benno Bokk Yaakaar ñu bëgg xam ana lan moo ko waral naka la daanaka mbir yooyee ah, mën ne am ci diggante boo xam ne ku ne ah, gisoon na ne ne daanañu xëy di ànd ah, di daanaka laxasoo ay gocc fi mu nekk nii mu ber aw saam fu mu jëm lu tax mu génn lan mooy nammateef bi lan mooy tolluwaay bi ci biir lu ko fa metti lan la gis loo xam ne jaral na ko mu dem wuti ji leneen ñu dëkk mal li nga xam ne moom mu day élection présidentielle atum 2024 naka la ci nar a taxawee ndax moom da ci ànd ak ñeneen wala bon day wut aw yoonam ndaxte loolu daa xew El Hadj Fall Makati ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah dalal ak jàmm ci jàkkaarloo politique. Euh, merci beaucoup euh, Moussa salaamaaleykum euh, waa Tëngéej département maa ngi nuyu aussi waa Jokko FM di nuyu waa Sénégal yëpp di di nuyu aussi. Euh, toute ma famille euh, ma mère et tout le monde. gërëm la sant la ah, bi nga dellu si waatee ci émission Jakarlo politique ah, donc euh et euh, nii El makati Fall euh, euh bal ba tàkk na riir wi jib na ñu dégg ko ci réseaux sociaux yi laaj la nga dëggal ko ya ngi ci APR wala da ngay confirmer que ne génn nga fa. en fait comme ni vous gissé euh je suis là peut-être pour confirmer euh, mon départ au niveau de la coalition Beno Bokoyakar et de la paire. Donc je l'ai euh, je l'avais posté euh, ça d'affaire juste quelques jours. Moi, je suis clarifier que man El Fall Makati donc euh, nekkoon membre de la coalition et de de la paire

bamu en fait euh, man man euh, euh, transhumance parce que booy j'étais toujours constant ci samay démarche ci samay engagement depuis avant les élections locales ci laa génn élection locale j'étais parti en coalition Il me paraît. Madame, si la non tu, parti en réalité et on était euh, voilà <laughs> on était plusieurs. raison aussi. Euh, ouais ah, ah, mais, bien sûr parce que euh, choix nous imposé woon. y' avait le choix de Ismaïla voilà, euh, qui était euh, euh, en ville comme candidat. Il y avait au nord l'ex-maire, je ne sais plus son nom là, Maro Mane. Bon, à l'est, il y avait voilà, mon oncle, je pense, Albendoy. Voilà. Mais en fait, moi, je, parle pour le nord et la ville. Sur ces choses je n'étais pas d'accord donc comme je j'étais pas d'accord sur ces choix et et doon ça, il y avait d'autres responsables yoo xamante ne ñoom gis nañ ne que ni parti bi doxalee jël ñoo xamante ne suñu kanam la ñuy ñëwee euh, intégrer le parti suñu kanam bëgg a ñëw jiite ñu avec euh, leur manière mais képp koo xamante ne bañkat nga képp koo xamante ne am nga looy bëgg ak Loy Bagn, mais euh, c'est c'est c'est très normal parce que tamit <laughs> être euh, un, un, responsable politique euh, euh, ne veut pas dire que il voilà yow ceux qui sont à haut dans les diri fu fu la donc ñun on a comme on n'était pas d'accord sur le choix de Ismaël Major, sur le choix de Mam Omar Mané on avait décidé de sortir et je le répète c'était pas El Hadj Makati euh, toute seule il y avait d'autres responsables politiques qui ont ne

donc man moi je suis pas dans ça. alors ah, ngay non du parce que et puis nous, on a notre avenir politique devant nous et dañ koy <laughs> pas à pas donc du coup euh, si choix nga élection législative c'était pareil euh, législative ma ci ma

Euh, locales yi gis nañu ko perdre nañu ay collectivités territoriales élection euh, législative yi gis nañu ko euh, opposition bi amna ay voix yu bari presque moom mo jël li nga xamné mo ci ëpp ci li ñu doon xëccio fi ba taxna sax tay ñom ñoy wañi tollu way bi ci bir assemblée nationale est-ce que du yéen comme li ngeen sentir né fi mi nek ni affaire bi xeeñatul neex motax ngeen bëgg dem bay leen fa. waaw en fait loolu tamit question la boo xamante ne. Euh, dina ma neex trop ma tontu ci parce que en réalité en réalité euh, la coalition Benno Bokk Yaakaar euh, nit ñi dañuy ne dafa nekk euh, ci ay situation yoo xamante ne dafa critique wala dafa nekk des dans des situations yoo xamante ne voilà ñoo ngi ñoo euh, daanu mais man gisewu parce que la coalition quand même euh, c'est une coalition forte c'est une coalition aussi euh, boo xamante ne majorité bi ñoo détenir à l'Assemblée nationale quand même peut-être peut-être y a un ballotage au niveau de l'Assemblée nationale mais boo xoolee ba toujours nous sommes majoritaire donc la coalition beno Bokayaka reste majoritaire dans ce pays mais ce que je veux ñi xam ko mooy euh, ñun man bok man El Hadj Fall def politique pour euh, Top nit parce que c'est le président de la République Top nit parce que euh, c'est eux qui qui détiennent quand même le pouvoir non Nous, on est appelé on est appelé à à faire partie de ceux qui dirigent ce pays kon donc euh, on a des ambitions politiques et aussi li ñuy def xam nañ ko fu ñuy teg suñu tànk xam nañ ko tey tey euh, c'est vrai ba ma demee ba gisatuma lu ma xam euh, mais yoon la ma jël sama recul loolu kese là. ban ban ban ban bon impact yow sa génn APR ban impact lay am ban poids électoral nga fa doonoon lan nga daan peser si kaw table ji. xam nga tey jii soo fa génnee ñoom ñu war ko yëg. xam nga en fait euh, ñun dañu judd ci politique xam nañ koy defee euh, nekk des hommes aussi politiques nekk aussi ay doomu euh, politiciens yu yu voilà te ngay booy tudd ndaanaanu politique yi du noo def dañ ci boole mag El Hadji Makati Fall na ko yàlla yërëm te xare ko na donc tey <laughs> mu jël ma def ci man lu mu war a def ci man donc du Euh, tey euh, man damay ne damay ne en politique man levier de vitesse laa ko téye oto buy daw à chaque fois alir bu ma ci bëgg daw mën naa ko ci daw alir bu ma bëgg a freiner <laughs> mën naa ko freiner parce que nag euh, yàlla def na may may nañu xam-xamu politique donc xam nañu tey fuy metti xam nañu naka la ñu war a def xam nañu lu ñu war a def xam nañu aussi le moment bu ñu ko war a def ak l'Union ñu donc pour euh, euh, tenir l'Union nga xamante euh, voilà li donc du coup tey impact bu ñu impacter bëri et déjà et déjà tey fait la koy quand on quitte un parti au pouvoir pour aller pour aller bon je dirais pas m'opposer parce que jusqu'à présent euh, j'ai pas dit que je, je voilà, euh, je pose ou quelque chose comme ça. Non, mais en tout cas, j'ai fait euh, euh des pas de recul pour, pour, voir euh, plus clair, mieux. Mais, mais, mais est-ce que aussi, hélas, sous mon rek est-ce que tu des ko pour xëcc pour que nous ñëwaat pour aller sur une table de négociation pour redéfinir les rôles pour repartir de zéro pour véritablement faire d'autres euh, d'autres projections euh, dans le futur pour que euh, parti de gën la ne gëdd tout le temps mom ngay revendiquer. bon c'est vrai moi, moi et c'est ça que je répète bon je suis sorti je prends mon temps pour pour là où poser les pieds mais ce qui est sûr et certain moi que mon principe ak samay conviction euh, dama ko gëm te je ne euh, euh, du du ay poste de responsabilité du khalis momay momay parce que man suis na sur les rares hommes politiques qui ont dépensé des centaines de millions depuis que ñu nak ci ci ci parti jusqu'à présent et je répète euh, des rares hommes politiques qui ont dépensé des centaines de millions pour euh, soutenir d'appeler euh, le président de la République d'appeler le d'appeler le parti et Moussouma de un franc de qui que ce soit en commençant par le président de la République mais mais fonds politique là les jëriñ aussi pour mener des activités politiques ouais. ouais. ouais. c'est ça parce que man

pas pour nous, pour se servir en toute sincérité donc je le répète. et c'est le cas ici au euh, Sénégal Vous avez vu ne gars yoo xam ne peut-être da dem ci rapport des comptes moo tax ngay wax loolu. bon en fait loolu moom yaakaar naa ne euh, sénégalais yëpp xam ko des des des des hommes politiques des leaders politiques qui ont ce qui les intéresse c'est euh, voilà c'est l'argent du contribuable et ils vivent que que avec vous voyez. voilà mais ñun ñun gëmuñu loolu ñun dañu gëm ne dañu war a dem utili suñu réew indil suñu réew et d'ailleurs voilà euh, bokkit bokkit nañu ci ci des om hommes yoo xamante ne <laughs> jëli nañ ay milliards yu dul jeex ci àll ba ci dugal ko suñu réew mu nekk ay ay ay investissement donc euh, li may wax foofu rek mooy que. ñun loolu leerul drop sama bopp lan lan lan ngeen dugal fii loo xam ne doon na ay milliards dugg ci réew lu mel comme nan. En fait, euh, euh bon, je veux dire, bon, le président de Sonko a accédé au pouvoir au temps où euh, il y avait vraiment euh, des problèmes énergétiques au Sénégal. Beaucoup de Sénégalais, ils nous avons dit que des milliards et des milliards, nous avons créé des centrales ici au Sénégal pour pouvoir contribuer. Euh, au développement énergétique de, ce pays. Voilà. Donc, c'est des, euh, des centrales tirent au il y bon euh, euh, je l'ai fait ici au Sénégal nous produit produire des voilà des plusieurs mégawatts. bon, je, voilà, je, vais citer la centrale, la, bon, voilà, je vais citer la première centrale solaire de Bohol, donc, qui fait 25 mégawatts. euh, voilà, avec un coût d'investissement de plus de 30 milliards. Voilà, 29-30 milliards. Lolo. <laughs> Donc, euh, Marc fait ko fi indi voilà ak yeneen ak yeneen. et ba ma ci paree. naka nga ko fi defee. da nga da nga si dugal sa xaalis da nga wutoon ay partenaires. da nga démarché da nga bon bon en fait en fait en fait bon. Euh, comment ça fonctionne bon. Euh,

et garder ça donc yéen a andi yéen a andi yéen a euh, démarché. Euh, mm. ki nga xam ne moom moo di euh, centrale centrale bi nga xam ne moo au niveau c'était la première centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest qui ci ok alors comment c'était il aussi ngeen dugal lu ni mel investir ah. le ni activer autant se donner physiquement et financièrement pour un parti et aujourd'hui xëy war ko mën a woon ginnaaw de oui parce que. man explication pour moi, amour cohérence. Ouais, ouais, parce que parce que bon neexul le gum, mais mais tey euh, comme nous ñu au Sénégal nous lañ nekk di parce que moi tu je représente l'Afrique de l'Ouest. d'accord voilà donc donc je travaille euh, avec. Euh, euh, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec tous les autres chefs d'État. Donc, donc, du coup, euh, je euh, tey su sénégal Sénégal euh, nekk ci dans dans d'autres pays Amoul, Amoul ben un ben impact tey je envers moi ou quelque chose comme ça parce que ligne que je posé pose, voilà exact c'est c'est ça en réalité d'ailleurs bon nous, quand on fait des investissements et tout et tout, après, on cède à des gens et puis on s'en. Voilà, dans d'autres. Aujourd'hui, euh, j'ai plus rien à voir avec euh, ces centrales, etc. Voilà, il y a d'autres qui gèrent ça. donc nous, on dans d'autres pays. mais président de la République sur une parti du temps est-ce que Watan ngeen est-ce qu'il a reconnu au moins que yéen amal ngeen ko njëriñ yow pare yow en particulier bon Makati oui parce que comprendre ma boo amee ku mel noonu normalement le le leader en chef dafa mën mais ci mais tu sais c'est ça aujourd'hui le problème parce que Tay au moins c'est moi une reconnaissance quoi wa waaw mais tey reconnaissance bon moi amul mais amne amne Tay na mais xam nga ce gain may laaj ndax dina am impact waaw mais mais ça sera ça sera fatal. Et, pour nous. et euh, et les euh, d'ici peu tu tu tu tu le sauras. c'est-à-dire c'est-à-dire mais nous, arranger les hommes politiques qui sont là. moi je les arrange pas donc c'est très normal c'est très normal que nous poussions à la à la à la porte de sortie. ayo dama ba nga fone yow da nga bokk tey ci système ko complot yi laaj nga ma laaj nga ma laaj nga ma nee nga ma lu tax nga yaakaar ne dañ la comploté waay laaj nga ma ndax le président Macky Sall gise ngeen bizarrement oui man man man man yàlla def na bon xam nga ak ci liggéey bi ma dany, nii euh, dañuy dañuy daje ci daje boo xamante man lay nekk moom ak ministre bu mu concerné ak directeur bu mu concerné ñu tëju ci ci euh, euh, ci benn bërëb. séance de travail. voilà <laughs> kon donc donc. gisee ça a eu lieu. ah oui bien sûr. Mm-hmm. voilà je je prends je. je donc moom tey la xam na kan mooy makati yi. waaye bu baax. Mm-hmm. parce parce que euh, comme ni ma la ko waxee dinañu arrivé ñu toog président toog ma toog ministre am toog directeur bu mu concerné toog ben yu me top. voilà donc du coup le problème ne se trouve pas. Euh, on peut trouver ça en, témoignant si ça passe Facebook quelque part ou des photos étaient été prises. pour ça. voilà, c'est-à-dire, je jamais pris de photos, mais sur ces genre de, de, choses, parce que les voilà, voilà, et j'ai jamais, et je le dis devant tout le monde, j'ai jamais, j'ai jamais parler de politique, de politique, euh, euh, voilà, avec le président de la République. Et je pouvais bien le faire. Je, ne l'ai jamais fait. Comment est-ce qu'il une opportunité Le premier des Sénégalais, le premier de votre parti. parce que... tu, n'en fais pas une communication. Mais parce que... Mais parce que liguey liguey mon fa compétence avec liguey euh, buñu ñu ci cadre bobu la yeb musuñu toog ba mu dugg ci politique. musuñu toog bama mu ne ko. musuñu toog yow li wote nga ci ak ñu bëri. musuñu mënoon ci doon da ngay jël opportunité bi. te te te te li may wax ni je prends en témoin Matar Cissé qui était le directeur général de la Sénélec je prends témoin le ministre Thierno Alassane Sall qui était son ministre de l'énergie voilà euh, li may wax ni. voilà virgule mën ñu ko ci dindi li li nga li nga donc wul dessus. voilà par exemple tey laa koy soog di si yow nga tok ne que tu as vu des y a eu des des scènes de travail avec le président de la république djem ci li nga xam ne moom ay centrales euh, donc euh, yi nga xam ne ngeen ko fi doon ngeen ko fi installer que loolu lépp amna que man quelque part je l'ai jamais trouvé musuma ko gis musuma si musuma si dara quelqu'un un acteur politique bo xamné ne à que tu t'investis pour le parti. mais mais mais xam nga sax au Sénégal on parle que des centrales. il y a pas que ça mais. Mais actuellement, dans les, dans, dans les autres pays africains, dans la sous-région, etc., euh, on est en train de faire des choses, c'est 100 000 fois plus importantes que ce qu'on a fait au Sénégal. Voilà, parce qu'on est dans plusieurs secteurs, euh, et tout et tout donc tey man motax mané voilà euh, bon nous sommes dans le secteur énergétique. ñoo ngi bon waaw non non en fait en fait en fait en fait. même tout doule même boo tuddul les structures. au moins qu'on sache au moins sur quel domaine. Euh, voilà non non non je préfère. Ah, je, hein. préfère <laughs> eh, maintenant de voilà quoi voilà de me taire surtout donc. on vous a pas de mm-hmm voilà mais ce qui est sûr est certain. tey bokk nañ ci ci ci euh, ci raar doomu ah, doomu Sénégal yi nga xamante ne euh, mën nañu mën nañu développer réew mi. ci euh, suñuy relation ci suñuy compétence ci suñuy ci suñuy lobbying. voilà loolu yàlla may nañu ko. Mm-hmm. donc te duñ ko duñ ko jëfé duñ ko ndamo duñ ko. Euh, voilà d'accord mais léegi. mais li ci kanam raw lu est-ce que mën nañu xam à part li nga wax que né dañ leen imposer won ay acteurs ay leaders donc yo xamné euh, le cas de Mame Omar au nord le cas de Albé à l'est et en ville Ismaël Major Fall est-ce que mën nañu wax né tay yeen li ngeen di contester le leadership bobu lila dal tay mo dal ku ci melni dudu may Maïssa Wade li dal tay mo lila diko dal lila dal mo dal également ku melni comme Souleymane doy est-ce que mën nañu wax le leadership bi ngeen di contester tay yeen également yeen yeen pousser à APR ba mu ñak véritablement donc euh, limu fi jotoon am ci politique. non non je je pense pas parce que xam nga euh APR euh, taxawaay bu ñu waroon taxawee bu ñu ko taxawé won au Sénégal je pense que ne xaw euh, à Rufusque tey euh, jafe ñu am parce que taille, moi moi bon c'est vrai je suis conseiller municipal à la mairie ville de Rufisque mais tu euh, euh, conseilles bien la la le maire de la ville Omar Omar Cissé. ah oui de passage je koy mais mais pourtant Omar Cissé yàgg na yëngu. waaw yàgg na yëngu. bon voilà boobu euh, maa ngi ci yeneen ah mais daan naa ko dégg ci sama waajur bu góor et tout. parce qu'ils étaient tout le temps ensemble. mais mais je sais que je sais que c'est quelqu'un euh, qui veut faire miinu ma ko nag. Mhm. miinu on s'est vu peut-être deux fois. Mhm. Euh, yu ñu daje ci conseil bi à part ça on s'est jamais vu on s'est jamais rencontré. Mhm. d'ailleurs j'ai sama temps sax permettre ma que je sois tout le temps au. Euh, euh, que je participe euh, au conseil municipal ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, euh, de passage, d'après ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui veut faire. C'est quelqu'un, bon, maintenant, euh, volonté une ambition pour yóbbu chikanam parce que je l'ai vu défendre euh, défendre défendre fisc plusieurs fois à l'Assemblée nationale, etc. Bon, bon, <laughs> ah, bon, bon, non, non, non, non, demain, non, euh, je répète encore que mais. Mais, mais, le maire, je, vais venir, je vais venir, je vais venir là-bas. maire de, le maire de l'Est aussi, deuxième fois bi may gisanteeg ci euh, le maire de le maire Omar Cissé bi ñu conseil municipal j'ai j'ai rencontré aussi le maire de l'Est là-bas mm-hmm. mais quand on a parlé rap gay yi affaire euh, ñu ñu expliquer et tout mais automatiquement sa réaction m'a montré que ni c'est un maire aussi qui va faire parce que xamuma moment mais mais sa réaction ak li mu wax bu dee dëgg dëgg rek moo tax nit ki di wax euh, xam naa ne kii ku ko jàppale mu dem. il veut faire. non non l'autre euh, l'autre maire. kii euh, Sakho Sembène on se connaît pas mosuñu gisee benn yoon boobu la ñu mos a gisee. donc ci on se parle pas des repères d'hommes yoo xam ne voilà dañu bëgg a defar dëkk bi. voilà mais. ci simple contact. ci simple contact. j'ai compris que ni ñii dëkk bi yitteel na leen mais. Mais au nord, mais au nord, il faut un changement. Euh, il faut. mais non c'est non non parce que parce que je je. ah parce que tu penses que. non c'est pas le même qu'il faut. non non non man aussi je le connais je le connais pas mais il était là-bas quand je rencontrais les mains. les deux autres oui. voilà mais. mais mais je sais que ne. Je sais que c'est pas le maire cassé euh, que j'ai vu qui va changer le nord. <laughs> qui va développer le. ça non comment se fait-il que de poser la question comment se fait-il que tu apprécies de visu deux maires pour qui tu penses que Diamonobi, ils ont l'étoffe qu'il faut pour défendre le Kibi c'est un pressentiment et que de l'autre côté également nga ça cassé à côté et que tu penses que euh, par intuition qu'il n'est pas le gars qu'il faut depuis, euh, depuis que pas, parce que moi je suis, euh, voilà, je milite au nord. Mais moi, tu le connais, Kassé Je le connais pas. Nous non pas au D'accord. au nord euh, Je milite au nord et je défends le nord. Et je défends le nord. Taï, taï, taï, euh, nous, bu nous euh, le nord bon mu dal ci yeneen euh, c'est parce que wax nga ko légui euh, tudd les léegi. Euh, voilà leadership de etc mais c'est juste ça mais mais taille, man de me ne le Nord il faut un voilà il il faut un maire qui a des relations qu'il faut parce que le budget le budget euh, qui est au Nord c'est pas ça qui qui qui. Euh, euh, qui développe le Nord ou qui change le Nord. C'est pas ça. Il faut des relations. À hauteur de combien Je sais pas, 300 ou 400 millions. C'est pas ça qui, voilà, qui, qui, développe le, Nord. le, donc le Nord. Kassé doit se débrouiller pour créer de la relation. Eh, c'est pas eh. la personne qu'il faut pour Yao. Je pense, je pense bien. Mais le, temps nous est différent. On va laisser le temps de dérouler. Mais moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu. C'est Tambalibi. C'est Du Mm -hmm quelque chose boo ne au nord et et ko fi parce que non on les voit sur le terrain s'investir. Ah, mais quand euh, non parce que on a des lectures politiques au fait parce que la politique euh, ne veut pas dire que euh, voilà Ousmane Sonko la sa coalition a eu donc voilà nous faisons jaar pour être des maires vous voyez mais parmi ces maires là il y a beaucoup de maires qui sont des maires par défaut. et et il faut que sénégalais aussi xippi se battre ci parce que aujourd'hui bu fekkee. Euh, mais mais là, faute à qui parce que vous étiez sur les sphères vous étiez politiquement investi, vous, étiez là pour demander véritablement Dagan Bato Askanoui, vous étiez en quiproquo, aujourd'hui, conséquence du moi, c'est un Khoulo, c'est un Mbicho Mbalo, len effritement, au point que, les gens yoron dafa wad wala fi néna bu alal ko sagan ko farlu mokay est-ce que d'où c'est parce que vous avez laissé passer la bonne opportunité aujourd'hui que faute de choix comme vous le dites quelque part lolu mu dal sen loxo wa Ou est-ce que aussi y yewi Askan Wi mon sentir que la population avait besoin de changement et que ils ont forcé la décision pour que aujourd'hui li mérite le et pas par défaut. oui euh, l'Union ñu am deux questions l'une ou l'autre. Euh, mérite le mais mais mais euh, mérite de la coalition. il y a eu mais pas individualisé. mais mais pas pas individualisé non du tout lolu mom ñep xam nañ ko parce que tay tous les maires que vous voyez là Quand même, leen Omar Cissé on connaissait. non à part Omar Cissé Samb peut-être. ouais ouais quelque part. ouais aussi Moi, j'ai eu j'ai eu à l'inviter ici politiquement il était là donc déjà. est-ce que est-ce que Il Y a, yow à que El Hadj Fall Makaty ko ko ci gën des bon yo, yo, on s'est on s'est pratiqué parce que politiquement. mais t'investir et autres. Mais, mais comme dire, juste, ouais, juste pour te dire que non, hein? pour te dire que non. bon, c'est vrai que hein, c'est. Euh, mais, mais, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous euh, c'est carrément ni les euh, son, son... Non, non, non, je veux, je veux que cette fois, non, demande que la population aussi, il faut que nous puissions une botte parce que il faut pas que euh, on doit suivre la coalition euh, Yewe Askanbi aveuglement comme ça, ben, ben, ben, ba voilà lu ñu teg rek dañu war a ànd ak moom. Euh, le maire euh, Mame Omar Mané qu'est-ce que vous avez réalisé en tant que parti APR en tant que coalition. bon euh, nga aujourd'hui moo xam ne tey jii nii sañ ngeen a toog ne kese defagul defagul. bon ham nga Mame Omar Mané man j'étais pas d'accord sur sa gestion. donc donc donc donc donc tay loolu bokk na euh, euh ci li tax élection locale yi ànduma ak ñom ok parce que. donc yow gisuma mu def non man. voilà kuma kuma gis. voilà kuma gis ngay doxale no xamantene gis na ne li du intérêt askan bi. même nak ci parti bi ñu bokk même parti. OK du la téré nga wax sa du ma tere ma wax li mu bëgg wax. parce que je suis indépendant nak da koy def affaire mu fit quoi. même mais deug mo fi ne. deug mo fi ne te yalla mo nekk fépp c'est juste ça donc l'on noonu ma gisoon ci Omar Mané pire la au nord. au nord ah mais si. pourquoi est-ce que tu as opposé au pour être candidat au nord. puisque tu penses que. bon xam nga xam nga xam nga dafa am wax wax. Euh, impact lay suis le la politique man levier de vitesse la eh, ah, premier ah, ah, allez vous parce que parce que parce que parce que parce que je suis issu d'une famille politique quand même. Oui. Ouais, donc je l'ai appris. Gis nga euh, euh élection yi passé man du bok ci élection bo xamante euh dama ci dem xamna ne dañ may jël du ko def. perdu d'avance. je vais pas le faire xamoon na né ñun mais local yi liggéey fi luñu fi teg. mais loolu tere nga candidat sa loxo né dama bëgg né. mais parce que pareeguma. Mais, ah, mais d'ici les prochaines élections à venir, uh-huh. Inch'Allah, Rabbi, dinañ yëkëti suñu lox té bala bobu yaakar na né Mais ban ban euh, base yow ban base électorale nga am tay mbokk yi nga baal ma maa ngi fàttali ne tey ñu ngi dalal euh, ki nga xam ne euh, moom moo Makati responsable politique nekk ci Rufisque Nord nekk démissionnaire bu APR jamono bi nee na génn na fa Berne Aoussa mën ngeen woote ci 77 519 56 81 wala ngeen woote ci serveur bi 88 628 0013 ñaar yoy yépp ku ngeen ci woote rek di ngeen daab El Hadj Fall Makati yi waxtaan dugg joxe seen xalaat ci li nga xamné mom modi ah, sa position politique sa posture également ses ambitions ah, li nga xamné ne ba léegi mom lañuy ñuy euh El Hadj bon poids électoral nga yaakaar tay ba tay ji ni ngay ngay teug sa dënn bon euh,

xam nga lu nit cap lu lu nit ki capable ak lu mu mën ak lu mu mën man man en politique fu mu bëgg dugg yëngal ko dama koy dam dama fay dugg dama koy yëngal nit mënuma téye te ñoom xam nañ loolu en 2019 y avait deux comités électoraux ci élection présidentielle yi euh, benn bi benn maa ko financé benn maa ko financé ñaar jambarooy ndigal may sabiige fal ndigal may sabiige kumba fal njarama xaliba booyi góor fal malay woo tabige Coumba Fall nee naa lees ooy nee lees waawul bul dégg daal di gëm gis rek ni waaw impact bi poids bi nga yaakaar donc ma wax ne euh, ku ci nekk xam nga lu nit ki capable ak lu mu mën ak lu mu mënul en euh, voilà parce qu'on a quelque part au bout de, de la ligne certains y ont ni voilà mais continuez. ok voilà donc donc demain, en 2019 euh, durant les élections euh, présidentielles les deux comités électoraux ils fi amoon comité comité non seulement Marco ko le plus les je l'ai fait avec mes propres moyens Ben, deux les RPI les meetings yu meeting de collectif beeg yëpp man mako def et toujours avec mes propres moyens amul dërëmu état bi ak euh, ak samay nit. Demna voilà non non ak samay nit. bo ci YouTube nga tapé sama tur El Fall makati lepp nga meeting yeeg nga fa. d'accord donc pour en 2019 Euh, ci élection présidentielle yi dem naa bay jënd ci ay autorités yu mag yu le président Macky Sall jox ay ndombal tànk ñu may jaay casquette ak ay t-shirt yu samay nit war a sol je l'ai acheté. ci ci ñoom pour vous dire que parti bi ñun fan la ñu toll ak lan lañ ci daj. mais mais Assane li ni dafa grave. laa wax. li may wax ni te ñoom ñu ngi may dégg parti bi moo ko moom yow tu travail pour le parti ak li nga leen defal lépp dama ne la yow nga ne aujourd'hui dama ne dama ne la ci suñu meeting de collecture élection présidentielle mais est-ce que loolu aussi du manque de considération bi ñu def dañ ko euh, dañ dama pare ci ci ci euh, ci meeting bi maanaam financement meeting bi lu mu ci war a def ba ma ko defee ba pare casquette yeeg mbaxane yi dañ ma koo jaay laa la la wax des des des responsables yo xamantene dañu dañu yor ay ndombal tank pour vous dire pour vous dire lan lañu daj ci parti bi. mais comme la Sadio loolu est-ce que loolu est-ce que parti la comment nan lañu mais mo ngi non moo ngi noonu waxuñu lépp dama j'ai j'ai dama j'ai reçu j'ai j'ai reçu j'ai reçu chez moi des responsables yu yor ay ndombal tank yu président jox ay nombal tànk ma yëkkati xaalis di leen jox pour que ñu soutenir le président de la république nañ ko dindi. ñu woote fii dindi ko. <laughs> non dama ne euh, mënul dañ. parce que dafa am. c'est ça. mais là man man. donc pour wax la. bi bi parti des idées pour wax pour wax la pour wax la il faut le reconnaître pour wax la lan euh, lan la El Fall makati daj ci parti bi. donc yoy bokk na eh, ci raison yi nga xam ne gën a nga génn voilà donc ñun ñun ñewuñu ci parti bi wala ñewuñu ci coalition bi pour ut ay nombal tangor pour ut alal ñun dañu ñew parce que dañu épouser won conviction politique président de la république. Mhm. donc loolu moñu fa bàyyi moñu fa bàyyi won mais si ñu demee ba nga nous avons ñun laaj dara considération mais boo ba à l'approche des élections législatives à l'approche des élections législatives. wa mais Fatli, El Hadj nga que numéro euh, fixe bi euh, euh, serveur vocal bi mu ngi doon 88 628 013 Vous avez li nga de numéro téléphone portable qui dafa changé moi 78 190 27 70 190 27 70 190 27 70 ngay 78 190 27 70 parce que amna ñuy woote ci numéro bi ma jikko wax hélas bon so leen ko mëna a 70 78 78 190 27 70 78 190 27 70 Lol moy jamono bi numéro bi nga xamné euh, su ngeen ci wootee mën ngeen na dab ki nga xam ne moom moo di euh, El Fall Makati ngeen dugg def seen contribution parce que apparemment am na yoo xam ne numéro bi ñu jëkkoon joxe donc ci lañ nekkoon di travailler alors on nous on nous appelle sur cette ligne alors que euh, moom mooy servir donc de lien par rapport à li nga xam ne moom moo di la page Facebook de Joko FM live d'ailleurs mën ngeen dem yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci internet bi alors am na mbokk mu dugg ci ligne bi mbokk mi asalaamaaleykum noo tudd ak foo ñuy woowee allo allo Assane bu rek ah, allo voilà dina ñëwaat donc à euh, mon ku ci ligne bi de toute façon euh, vous êtes attendu au 88 628 013 voilà 78 190 27 70 donc les deux numéros euh, su ngeen ci woté mën ngeen dàpp qui dit El Fall Makati alors on est resté sur ça Elage sur cette sortie est-ce que aujourd'hui euh, mën nañu wax ne parti boobu nga xam ne moom moo di APR bu ñu conti bu ñu continuer wul nii day def implosion parce que euh, nee nga du yow kese yaa fa dund euh, lu ni mel. est-ce que mën on peut s'attendre à ce que le parti soit xam nga xam nga dam leen dam leen di wax ne que tey sorti El Hadj Fall Makaty la ñu gis. oui te yow yaay le premier bi ko fi def. et. war nañ ci mën a tiire. bi APR APR solo ba léegi. nii man maa ngi soog a gis fii à Rufisque un leader bu génn APR. Ah. fëgg dënnam fëgg dënnam ne génn naa. waaye parce que xam nga boo jiitalee. askan bon benn sa sa xarit Doudou Mbaye sa menacé woon na loolu lu moom. boo xalaatee euh, bon euh, xalaatee boo xalaatee ne yow askan bi moo la ñor Sénégal nga gëm Afrique nga gëm parce ñun. nous sommes des éléments africains Nous, sommes. des éléments africains. mbind ay. des ah, est-ce que si tas la non dama ne dama ne euh, Makati mais ah oui parce que il faut être courageux sa pour pour pouvoir. Euh, euh, sortir à temps. Ismaël Mayor Fall récemment amna eu une rencontre euh, presse bi euh, filtré une euh, information Bon, que ne les gens presque plébiscité nañu Macky Sall pour mu qui ci li nga xam élection 2024 bi que ne APR ñu ngi est-ce que est-ce que également du nekk genre paradoxe soo ne ma tey ñeneen génn je je m'en profite pour dire au président de la de la république. nous ñi ko wër troisième mandat. na na na tourné xool leen benn par benn kan moo ci gagné localité am ak kan moo ci mën a gagné localité am. waaye yow tam da nga fàttali ne fii la Ismaïla Madior Fall toog ne ñoom am ñu dix mille voix. par rapport ak li nga xam ne moom moo di eh, eh, suñu boole eh, woon seen ay doole. Ismaïla mën na mën na mën na gagné Rufisque département wu non département bi sax dafa rëy ci moom Rufisque Ismaïla Madior non nañ bàyyi Tëngéej nel est est est-ce que Ismaïla Madior peut gagner pourquoi il n'a pas gagné l'Est avec tous les moyens La question se pose, euh, pourquoi, il a gagné l'Est Pourquoi gagné le Nord aussi Donc, celui qui ne peut pas gagner l'Est, vous au le président, troisième mandat, ça est Nantes, vous arrêter. Il y a beaucoup d'incohérences sur le troisième mandat. Et, et, et l'Iram Non, mais... dina weesu ñàkk bi bu ñu deful ndànk. xam nga. yaa ngi tiital waa APR. wala fi mu nekk yaa ngi leen di attaqué frontalement rek beneen exemple parce que da nga génn rek itam da ngay sànni xeer que depuis que l'arrivée de Ismaïla Madior dafa tas. ñu bëgg ko ñu bañ ko ñu. mu neex leen mu naqadi leen. non non depuis la tey je te un exemple. tey te donne un exemple. tey tey au sein du conseil municipal. bu wees ñaari nit. la xam ci APR euh euh ñoñu yag euh yag nañ ci ci parti bi parfois tu vois ay nit yo xamantene sur les huit conseillers yu Ismaël Major am j'ai vu j'ai j'ai vu une dame euh euh, euh qui habite à Darou je sais pas quoi ko xamantene ne elle n'est jamais connue qui parti bi musul xeexal parti bi musuñu ko gis. elle a été parachutée. Hein? par qui au au détriment par Ismaël Madior au détriment ci ay ay ñom jaar géen nga xamantene euh, elles ont tout donné au parti ay fat fay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nga mën leen citer les Aïta Diagne. mais lii cri de cri de cœur la apparemment tu nous amènes tu nous amènes tu tu, tu nous amènes une dame bo xamantene parce que je sais pas euh euh euh, euh ken xamul ken xamul nuñ ko mën a nuñ ko mën a euh, euh, tuddee tey tey tu vois tu vas tu viens au nord toujours euh, au, au, sein de la de, de la coalition et, et de l'APR même tu vois un vieux un vieux qui était je sais pas en France xaw ma fu mu nekkoon euh, dem ba ba mu neex ko mu gàddu ay dëbësam ñëw ne voilà c'est un journaliste xaw ma nan seen je sais pas. Euh, voilà c'est un journaliste comprends nga Taïnou, c'est lui qui parle au nom de de de de euh, euh, des des responsables il lu mu bind lay bind. Djibril Sen. Djibril voilà lu mu bëgg bind lay bind un gars boo xamante ne jabaram sax kenn xamu ko xamul na mënula indil ñaari nit ce sont ces gens là qui viennent. voilà mu mel ni am na ah, mbokk mu nekk ci ligne bi mbokk mi euh, hélas jëlal casque bi. voilà donc euh, mbokk mi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam noo ak foo ñuy woowee sëñ bi. alhamdulilah maa ngi lay nuyu jaraaf Moussa Pouy. ñu ngi lay delloo di la fay. maa ngi nuyu Makati Fall boobu. waaw yow la kan ak foo ñuy woowee. man la Sidi Makhtar. ah Sidi Makhtar bismillah kooku moom suñu waay la. ma di leen nuyu di leen sargal bu baax. ñu ngi laa fay bu baax euh, daanaka. macha allah ci intervention rek ci euh, li nga xam ni moom la Makati di wax noonu. Mm-hmm. mu di seen parti boobu di APR. Mhm. doon parti bu mag tamit am dignitaire yu mag fii ci Tengej moom mu bokk ci. moom moom mu bokkoon ci parce que nee na génn na. waaw mu nga ca ba tey <laughs> mu ngi ci ba tey parce que nguur goo xam ni alors automatiquement dafay waaj jeex. Mhm. wala mandat buy waaj a jeex. Mhm. ñii daw dafay bari. <laughs> waaw d'accord. ma di ko ñaanal moom jeune la. bu mu xool li mu liggéeyal parti bi. wala li keneen di liggéeyal parti bi mais na xool lan la ci tëngéej am ci parti bi mhm. parce que tëngéej moo ñu ñor mhm. tëngéej depuis macha allah Ibrahima Seck Maurice Gueye jusqu'à présent mhm. tëngéej boobu moom la ñuy gis ba tey wax leen seen responsable wax leen président de la république mu gestu tëngéej yóbbante naa ko bu baax Ismaïla keroog bi mu toogee ci sa plateau Moussa fouy wax naa ko ko te actuellement entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci biir Tëngéej muy feneen ak feneen. Mhm. mandat buy waaj a dañuy ralentir seeni i mhm. pour mën a am wecc bu bari wu ñu yóbbaale. Mhm. ñuy ñaan yàlla nag nañu taxaw ci entreprise yi nga xam ne ñoo biir Tëngéej liggéey. ñu yeggali seen service moo gën politique bi politique bi bari na te mhm. major na nga dellu fa nga nekkoon mhm. nga toog ak yar ak teggin comme na nga nga xam moom la ko sa papa doon defe te yow nga tàmbali ko mhm. te fas que ni ko jégalee si politique maa ngi lay ñaanal na nga avancé si bu baax may nuy responsable yëpp yi nga xam ni ñoo ne biir APR te taxaw biir tëngeej ak maire opposition bi yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñoom nañu taxaw pour intérêt tëngeej moo gën politique jërëjëf jërëjëf Sidi Makhtar intervention bu am solo Ah, ba tey mbokk yi mën ngeen ñu woo ci 78 27 70 wax ak euh, El Hadj def seen contribution ci euh, doxalinu yorinu Tëngéej bi ba tey nu ah, ngi nekkoon ci euh, tey ce cri de cœur bi nga xam ne apparemment voilà El Hadj boobu ak léegi yaa ngi koy yëkkati. Ah, ci la responsabilité le leadership notamment donc de Ismaël Major Fall mais ci interpellation bi Sidi matar nee na yow parti buy waaj jeex daw yi day bëri est-ce que foofu la beneen bi mooy nee parti buy waaj jeex. Euh, euh, euh, train donc de réalisation bi day notamment l'intervention des entreprises yi fi nekk muy sant yow Ismaël Madior Fall ak yéen ñëpp ngeen téyandi li nga xam mom modi parti bi te ku nek taxaw ci sa responsabilité. interpellation la de lo ci xam waaw waaw en fait xam nga ku nek rek ni nga ni nga ko jàngatee nonu nga ko mën nonu nga ko mën a mais man. li ma lay laay wat di wax j'ai été toujours constant ci sama démarche parce que ba may euh, ba depuis avant élection locale yi yaakaar naa ne bu fekkoon ne euh, euh nous ko waxee non la damay élection locale yi damay toog rangé wu comme ni ko samay camarades de parti defee. donc ñëwuloo pour euh, élection législative même chose <laughs> donc moi ba ma ba ma commencé sama révolte dafa yàgg ba ma commencé révolté euh, du du est depuis depuis depuis mars le commencé. ci événement mars me me relancer avant que ñëw fofu. est-ce que mën nañu wax c'est un point de nos retours de Rodello APR. payer? nga en politique. il faut euh, dire jamais jamais. Euh, voilà parce que euh, taille, duma ñëw fii toog wax loo xamante ne suba euh, damay ñëw toog nga ne ma lii yàgg foofu. waaw vidéo sax la yor dañuy vaar voilà donc <laughs> dañuy vaar. donc APR. Mhm. bon man xuloo ma ak ñoom en réalité. xuloo ma ak ñoom juste que dañu bokkutul. Euh, ay gis-gis euh, ay gis-gis. gis naa ne injustice bi bëri na fa manque de de considération bi bëri na fa. voilà je me suis retiré et puis voilà xool xool d'autres chemins mais mais on reste vraiment de. Alors, on a compris que aujourd'hui euh, le divorce est, scellé même si euh, des retrouvailles ne sont pas exclues pour ne pas dire sont prévisibles est-ce que aujourd'hui on peut dire que ne que na ngeen ñu ngi maa eh, ngi leen di woowee Dakar man la Lansana Lansana Gagny Sakho nekk Pastef les Patriotes. mais mais Lansana bismillah dalal ak jàmm. maa ngi maa ngi dal leen jàmm. merci jërëjëf acca yow la ñuy bëggoon intervenir ci émission bi. waaw Makati mu ngi lay dégg. waaye damay Makati engagement bi. parce que gis nga dëkk bi euh, defe naa xale yi ñoo ko yor ñu mel ni moom. gëmuma ni Makati politique ndax affaire xaalis. gëmuma ko. mais nit da ngay dem boo xamee ni hmm, lan moo li gën a soxal mooy fan nga jëm ëllëg lii am ci dëkk bi tey te ñu war ko xeex du suñuy doom parce que gëmu ne gëmu ne mën nañ ko defar mais suñuy sët la boo jëlee risque ci boppam nga comparé ñaari nit hmm, nga comparé le ministre de la justice Ismaïla ak Makati xam nga lu leen wute Makati lépp lu mu am def ko liggéeyal boppam keneen ki lépp lu mu am def ko wekk ci nit ku ñuy wax président Macky voilà loolu moo xanaa poli xanaa gaañ politiquement motax ngay wax bok parce que Ismaël Ismaël pas pas pas déedéet pas politiquement moi je parle de l'engagement des gens affaire sama intérêt personnel la bëgg a wax. Mhm. warul tax ni fi lay bok fi lay bok suñu dëkk fi mu toll tay hein ah, ñepp wara taxaw pour ay changement am ndax xalé yi gëmuma ni muy yow muy man parce que suñu doom yi seen avenir mooy dawal Jakarta. Mhm. te man wóor na ma ni ñëpp bu ñu taxawee def yoon ah dëkk bi mën na soppeeku loolu moo tax man may souligner engagement ñu mel ni exemple pour la jeunesse de ce pays là. Mhm. un moment principe nit da ngay am principe am foo taxaw ni man fii laa jëm dëkk bi ñu laa bëgg mu taxawee. Mhm. voilà loolu daal ma doon sama compte. Oh, mais mais mais balaa ngay balaa ngay dem ma bëggoon la laaj benn benn question parce que ma leen gis yéen ñaar ngeen photo wu est-ce que aujourd'hui mën nañu euh, attendre mu ñëw sa wet est-ce que tey jii nii yéen a ko enrôlé est-ce que yéen également yéen a ko poussé à ce que moom mu génn APR pour mën a ñëw ci yéen xam nga loolu boo ko laajtee ah. Mhm. defe naa dafay nekk sax manque de respect pour Macky parce que nit boo demee ba naan kii moo tax mu ñëw day fekk kooku amul conviction. on a échangé waxtaan nañu mais on a échangé sur le Sénégal ci dëkk bi fi mu mën ci dem. voilà defe naa loolu aussi foog ñuy rafet njort de temps en temps parce que ñëpp a yamuñu am na y a des gens de conviction. man ak yow mën nañu bañ a bokk mais mën nañu toog waxtaan ci réew mi fan la jëm mais yàlla xam na ne mhm. waxan waxtu wax ñu ci loolu man sax dama ko ne gis nga man xam nga lu ma ko wax sax man mhm. Hmm? Mhm. nit boo yëngu ci liggéey nga nekk entrepreneur hmm? def engagement politique baaxul c'est pas parce que réew mi ni mu demee la boo nekkee entrepreneur nekk engagement politique nit lañuy dañuy takk sa biir et c'est pas normal secteur privé boo mën ci gis tey ñoom ñëpp xam nañ ne réew mi doxul mais kenn si ñoom ñëwul ngang parce que ku ci ngang ñu rëq sa ndigg yónnee la impôt wala dootuñu la jox liggéey <laughs> loolu moo fi war a jógee dañu war a séparer mhm. secteur privé ni muy doxee mhm. ak politique bi parce que secteur privé moo yor comme koomu réew secteur privé mooy joxe liggéey mhm. loolu la man loolu laa ko wax man sax dama ko nee woon man su ma doon yow kat du ma dugg du ma feeñ parce que et cetera et cetera pour wane na la il a pris ses responsabilités dégluwuma parce que li muy def daf ko gëm te réew noonu la war a doxee nit dañu war a am dignité tuuti ok merci beaucoup ñu ngi lay gërëm di la sant. donc euh, jëf voilà donc euh, kooku xam ngeen ko. Euh, muy <laughs> responsable politique ah ñu bàyyi la nga def sa réaction di ki nga xam ne moom moo di Lansana Gagny. salaamaaleykum aleykum salaam donc beneen nit ah ñu ñu ñu déglu d' abord ki nga xam ne moo dugg si. salaamaaleykum noo tudd ak woowee ñu ngi lay delloo ziar. waaw man la Sambay maa ngi dëkk Diamaguène Rufisque Nord. Sambay bismillah yow la ñuy déglu. waaw ñu ngi remercier l'émission bi di leen jaajëfal puy di remercier ki nga dalal bu baax muy El Hadj Makati Fall mhm. waa di ko jaajëfal di ko encouragé bu baax ci décision bi nga xam ne bu metti la mu jël ko mhm, waa vraiment jeunes yu mel nii la ñu soxla ci au niveau du pays sax waxuma ci Rufisque rek mais ci réew mi mhm. parce que li ma expliqué yépp loolu man lu ma gis la lu ma fekkee la lu ma dund la en 2019 loolu muy wax ni ay membre du parti di APR dañu doon jaay ay t-shirt ak ay casquette man loolu xam naa ci lu leer mhm. kon déjà engagement ak détermination am dafa leeroo ci kon yow kon yow kon ngay dëggal que si biir parti bi euh, am nañ leader yoo xam ne dañ leen daan jaay matériel yi nga xam ne moom la parti bi war a demee te moom ay fonds politique déjà

vraiment jeune la boo xam ne macha allah. Mhm. mi ngi def lu baax surtout social. surtout mhm. social li mhm. papam doon def lu lu rëy mi ngi ko si taxaw. très bien ngi ciy def li mu am lu mu mën lu mu mi ngi koy def kon jeune yu mel nii lañ war a jàppale vraiment di ko ñaanal yàlla di ko wax yoon bi nga jël aussi yàlla na si yàlla def jàmm rek parce que politique yombul politique yombul. jërëjëf jërëjëf. merci beaucoup Sam Mbaye moom itam ah, nga xam ne ah, ni ñu ko waxee voilà réaction par rapport à li que ah, Sakho wax ak balaa ngay wax ci Sam Mbaye wax de de passage ah nuyu euh, mon grand frère euh, Gagné, Gagné Sakho donc euh, mu une personne que je respecte beaucoup donc voilà et l'humour là wax il laay confirmer rek. manquez-moi le respect. <laughs> c'était une question il fallait la <laughs> poser. non non non j'ai j'ai compris hein. Euh, voilà quoi donc euh, mona est une personne que je respecte beaucoup et bon tu euh, cadre professionnel euh, ñu sax que ah, xamante ne bu ngeen nekkee ci secteur privé bi ah, état bi da leen di teg tànk teg leen loxo. voilà voilà du leen jàppale donc di leen ko quoi. voilà quoi donc euh, te li mu wax ni loolu laay confirmer parce que quand on s'est discuté et tout donc li mu wax ni ci rajo bi en direct loolu laay confirmer loolu la ma wax mais en réalité moi je l'ai dit du ma def lu ma gëmul. voilà parce que instant bi euh, gis naa ne voilà y a trop d'injustice et puis li ma gis doyatuma. ma ma fallait quitter le navire. voilà ma génn et bien ne veut pas dire que ne dama génn ne dama ànd de ak Sonko wala dama Khalifa wala ah, parce que ñom aussi voilà hein. voilà nga photo ak ku nek opposition. te nga sommes ci parti bu yor pouvoir. aussi on a le droit de se poser des questions. non non non nit ñi nañu bon nañu wax dañuy. bon dañu gën a dugg de suñ ko a dañuy tàttale di wax rek bon de de de passage aussi euh, Baye Sam euh, maa ngi koy nuyu di ko gërëmaa ah, di ko sant bu baax a baax parce que euh, vraiment nit ku engagé wu ci man nit ku gëm li muy daaf nit ku loyal aussi donc ma koy gërëm di gërëm waa jàmm gën yëpp ak di wax ne maa ngi talal loxo jeunesse bi yëpp ñu ñëw parce que il faut que ñu ñu ñu former beneen affaire bu bees dama bëgg jeunesse bi ñu former beneen affaire bu bees ñi nga xamante ne tey mooy ñoo nekkoon les hommes politiques yi fi nekkoon euh, élection yi passé euh, et cetera ñooñu ñëpp ñu jël leen yóbbu leen à la retraite. waaw ah, loolu moom yàgg ko wax. voilà ñu yóbbu leen à la retraite euh, bon jàmm gën fi ma dëkk on a un leader politique qui est là-bas donc qui a fait plus de 30 ans de carrière, mais honorable c'est un grand frère à moi. Donc euh, que nous aussi qu'ils acceptent d'aller à la retraite parce que nous euh, bilan mais ils n'ont pas de bilan ils ils n'ont pas de bilan ils n'ont pas de bilan Eh, bu ñu amoon bilan du ñu dem deux élections. mais nañ fi de depuis du mais mais euh, tardel nag. Euh, mais mais yàgg boobu moo ñu tardel il faut que même moo dal sama sama euh, sama xarit yi waa APR. il faut que ñu ñu def lu ñuy wax lavage. Une alternance générationnelle. Voilà, euh, alternance générationnelle, indico, un, changement radical. Complètement, les vieux, nous poussent. Hein. responsabiliser les. Au moins, ils peuvent rester dans les sphères, mais, dans les environs. Mais, euh, les ils sourds. parce que pendant plus de 30 ans, euh, non mais c'est un qui de C'est un je je le répète ci parce que c'est khalis la askan bi mais ils n'ont pas de bilan mënuñu wax li wala li ñoko indi wala fi ils n'ont rien foutu la question reste posée Makati fan de jëm El Hadj fan est-ce que da ngay dem on va vers une élection présidentielle en 2024 euh, Abdourahmane euh, Diouf hein, qui est un Rufisquois hein? donc comme euh, tout le monde a levé le doigt pour dire que man je suis candidat ailleurs également euh, Ousmane Sonko l'a fait Kenen l'a fait est-ce que tu a accompagné un parti politique une coalition quelconque et est-ce qu'aujourd'hui, El Asfal Makati ose euh, franchir le Rubicon faire comme tout le monde le euh, bon de passage Abdourahmane Diouf il manque une nuit. ah. salam, salam, ça va bien voilà donc nous tout d'accord foo ñuy waaw foofu jok Jokko FM la. waaw Jokko FM la waaw. si waaw man maa ngi leen oowee Dakar. d'accord noo tudd. Uh-huh. man maa ngi tudd Adja soxna Adja. Adja soxna Adja wax ak El Hadj Fall mu lay déglu. waaw d'abord maa ngi nuyu auditeurs yëpp di leen jaajëfal bu baax. merci jërëjëf. di leen aussi yow ak euh, sa invité. Mm-hmm, jërëjëf merci. waaw euh, vraiment dañoo bëgg waaw di participer aussi émission bi. Mm-hmm. kontaan nañ nag d'abord di leen remercier bu baax a baax. Mm-hmm. émission bi vraiment am na sens. Euh, de aussi sama satisfaction mooy dama bëgg a wax ne. Mhm. ñun ñun ak El Hadj ñun xam depuis le début on est ensemble. Mhm. et boo xoolee on a toujours euh, été à côté de la l'APR. Mhm. parce que El Hadj depuis le début mon moom vraiment dafay soutenir APR. depuis le début je vais te voir depuis le début. daanaka du léegi rek comme major parti bi ñu koy defee.

combattu pour pour paix donc c'est bu ñëwee mon xam ay raison bu ñëwee ba toog ba xalaat jël décision ferme ne dafay génn APR ñu dañ koy suivre. Ah, kon moom ah, moom fi mu nekk nii yéen fas ngeen si si parce que on a nos convictions te du loo xamante ne moom Moi, idée personnelle non non yor groupement yor ben on a une équipe euh, te yaatu na macha te xam donc dañuy lu décision on le prend ensemble toog waxtaan ci ba décider li on a décidé ensemble décision unique non non une ñu di doxee noonu. d' comme leader bi. Mhm. le leader. donc mais donc derrière lui. donc équipe donc décision bi soutenir décision bi fii si bopp dañ ci waxtaan ak moom avant bien avant muy toog ak yow di wax ci yow. dañ ci waxtaan ba pare ak moom. tout à fait donc waaw donc dañ ko jël ensemble. Mm-hmm. waaw te am dete waaw dina am yeneen peut être temps bi buñ ñu ko mayee dinañu dugg ci groupe bi ci groupement bi confirmé. Mm-hmm. wax li ma wax. donc ça veut dire waaw parce que ñun du parce que waxul du intérêt moo tax dugg ci APR bu doon intérêt bu dugg ci APR. parce que bu ñu APR ñaata at on a fait combien d'années là-bas ñaata at laajal population bi ñaata at te pourtant toujours avec ses moyens personnels poche am lay lamb moom.

aussi dafa am ambition aussi ci population bi puisque moo tax mu jaral ko peut-être mu jël alalam di ko ci def. mais moom xaarul dara ci état. jërëjëf Adja dara ci nguur. jërëjëf Adja rafet na wax dëgg yàlla. ñu koy jaajëfal lu bëri ah voilà donc euh, beneen euh, témoignage beneen intervention. oui. Euh, Adja nee na ñoom avec le groupe yow yaay le leader donc ils ont préféré ngeen waxtaan ci seen biir jël la décision de sortir. oui effectivement bon maa ngi koy nuyu ak cabinet yëpp ah. Euh, Adja donc euh, du coup remercier Boba baax a baax euh, maa rafetlu ay et puis comme limu bon wax rek bon amul ben décision bo xamantene euh, je l'ai pris toute seule donc décision yep dañu toog concerté wu ci waxtan ci voilà mais en tout cas li moi wax rek que pour l'instant on a décidé de mettre un mouvement mm-hmm. en place ah oui donc pour euh, pouvoir préparer les élections présidentielles à venir. Tourbillon non juddu non, euh, tur bi mais euh, je préfère. ne pas le dire aussi voilà. <laughs> dafa teel ah dafa mais en tout cas <laughs> mais en tout cas. exclusivité en tout cas may wax may wax waa Je Tëngéej Mais may wax aussi waa. Sénégal mais fii mooy sa première sortie à part Facebook. ouais, c'est ça donc fii que déclaré que tu es sorti de la paix. voilà ça au moins ça ñun ñoo ko voilà ça ça c'est vrai donc mais wax ne que. Euh, dama génn euh, me rejoindre voilà c'était affaire de c'est pas indicateur c'est pas indice. Euh bërki démb Sonko la. parce que tay na nag gars yi dañu waa askan wi. ak ben- ben- dañu xew. ben exemple <laughs> ben exemple la benn exemple la lay jox. bërki bërki démb euh, Sonko dafa Sonko dafa déclarer ne ma ngi dem Géejawaay ñu dem diko fa xaar fan la fan la dem wala fa jëlee. Hmm. voilà donc yooyu yëpp xeetu politique la. ok donc il faut regarder euh, loolu ba voilà en tout cas en tout cas man <laughs> man man man amul ñom ñep kenn ku mu ci mën canaliser en politique. ça moom je te le dis. Euh, et d'ailleurs les responsables que sont là euh, mën nañ confirmer mais ce qui est sûr et certain c'est que je suis indépendant et j'ai mes convictions et de défendre jusqu'au dernier moment et avec aussi ni euh, ma gëm ak me euh, ma gis-gis politique. donc la décision elle reste en suspens. un mouvement est né. vous êtes sorti de la paire. un mouvement est né. et que aujourd'hui Goulot. oui mbokk mi alaikum waaleykum salaam. waaw xam naa ce sera le dernier intervenant mbokk mi noo tudd ak foo ñuy woowee. Malick Marico. Malick Marico ça c'est un quoi waaw ñu ngi lay déglu bismillah. <laughs> delloo nañu la ko kay Marico merci beaucoup de ko de votre intervention sant yàlla bu baax a baax a baax. ça va. alhamdulilah. vous aussi mon frère El mu ngi lay dégg. Malick vous pouvez parler en direct d'ailleurs. Euh, mon frère. en direct comme ça quoi. oui waaw ah c'est bien. et wa adduna wa waa yeb ñu ngi leen di déglu aussi. bon pour ñu ngi leen di nuyu ah, di di rafetlu émission bi. Mm-hmm. Allô. Allô. oui ñu ngi lay dégg bu baax. Elage mën nga wax ak moom directement. oui ah, comment va. Wa Malik, ça va mon frère jaar la ñu ngi lay dégg bu baax baax te ngeen te ngeen jëf déglu. <laughs> mais ça fait plaisir ah, maa ngi déglu émission bi. Mm. di rafetlu deux jeunes bu may déglu sax kuy damay am benn mbégte bu may sentir. ah machallah. et puis ambi rigueur bi nga yor di wax xam naa ne du tey depuis enfance xamante nañu. <laughs> mais tey ni ma la gisee ci plateau bi avec détermination. Mm-hmm. mais man plutôt dafa am loo xam ne moom gën a neex. Mm-hmm. mooy ni nga ko il faut que la jeunesse rufisquoise chasse benn affaire que nous les Rufisquois on est en retard. te mm-hmm. détermination boobu nga yor ñu bañ ko actuellement. Mhm. la ville faut soxla lu bari. et yaakaaru ko kudul si la jeunesse. tay fi nga genn bëgg dem feneen yow yaa ko xam. loolu sa condition personnelle mhm. man loolu may bëgg mais toujours ñu xam ne ñu les Rufisque quoi am nañ droit xoolaat tay mo xam coalition bu mën a ñëw moo xam candidat bu mën ñëw fan lañ wara a dem.

aujourd'hui tay gis nañ ne loolu amul la benn apport donc sanction boobu dama ciy d'accord dama ciy d'accord parce que ville bi bu ñu warante dëgg Macky Sall amul dara lu mu ci xalaat Guédiawaye Pikine et Dakar en tant que Dakar les quatre départements yi nekk ci région de Dakar ñun dañu laisser en rade mais pourtant boulevard Maurice gueye bi commencé na juddu en hein. peut-être que c'est le début donc du commencement ah loolu xam naa fi na bëgg a dem ñun ñun en personne ñun toog nañoo Macky Sall wax nañ ko loolu parce que ñun suñu intérêt man dama ne politique du métier il faut que la jeunesse ñu dem liggéey ji il faut que ñu dem joobi ji gis nga tey aux alentours de de de Sonko man dama koy wax man gisuma ci Rufisque quoi aux alentours de Macky Sall gisuma fi Rufisque quoi un ministre lañ ci gis mu nekk ci ginnaaw te te te franchement parlant nous les Rufisque quoi xam nañ ni mu demee Sonko est-ce gis kenn ku taxaw nekk ci Sonko un jour bu important ci journée Sonko mu taxaw jël micro amul donc bu ñu ñun nous, nous toog ñun les Rufisquois ñu nous ñu xam. est-ce que est-ce que da nga bëgg wax que ce dafa donc euh, des leaders Rufisquois au devant de la scène près des décideurs politiques yi nga xam nous euh, ñooy yëngu sur une sphère nationale et que ñu baña def un un repli identitaire rester carrément sur Rufisque. absolument oui c'est ça. Mm-hmm. nit intérêt mo koy lijjantil bopam quoi. Mm-hmm mais politique vous ko pour sa askan la observation analyse pertinente aux alentours des leaders n'y mhm. a pas refus quoi mhm. ñu a président ñëpp élection présidentielle lañ nous les waruñ ko dafa avancé Pikine dafa avancé mais la ville de lay wax rek président ñun loolu lañ ko wax mu réagir boulevard mais non, pourquoi depuis des années ni que ni pas de waxuñu c'est vrai il y a une latence quand même c'est vrai c'est vrai qu'il y a une latence. Mhm. il faut que ñu am benn leadership pour nous parler. dem ni ñun Rufisque amul ci ci département au Sénégal. Mhm. amul ben département bu ñu gën am richesse. Mhm. sur tous les plans sur la santé bi éducation intellectuelle entrepreneuriat loo fi laal quoi, yi ñoo ko hmm tey ci ministre de la justice il est il est hmm pourquoi pas en ce moment là on ne candidat pourquoi pas si Leguis, notre très grand frère Seydou Diouf être candidat. au lieu d'être au lieu d'être des suiveurs déjà, déjà nekk ci gannaaw leader sur le plan national. non non il euh, peut lever sa main et dire que je vais être candidat comme l'a fait Abdourahmane Diouf par exemple. non je suis d'accord avec lui. Hmm. parce qu'il croit il croit en lui. donc moi je dis à mon frère pour bañ au pour jërëjëf jërëjëf mais di nga ñëw quand même il faut nga ñëw ah, parce que là on, on il faut préparer Mérico faut, foog nga ñëw <laughs> man tey dama gis benn courage mhm. dama gis benn courage mhm. et et je fonctionne comme ça man mhm. je dis personne que yàlla mu ngi nii te gisul dara dëgg la kay ville bi dafay souffrir bu ñuy naxante wax na ngeen dëgg les budgets yi ñuy wax nii c'est pas d'argent bu ñu sonal ak seen i budget ay il nous faut des milliards pour la ville. Il faut que l'État. Il faut que l'action de l'État se fasse à Rufisque. Hmm. Hmm. Non, non, c'est l'État. L'État a une couleur politique en principe. Hein? Il faut que l'État a une couleur politique. Il faut que l'État se fasse à Rufisque. C'est idéal. nous, nous défendons. Moi, opposition pouvoir nous merci beaucoup merci Mérico merci je merci intervention et je te suis. Mhm, je te suis. merci. ma ma ma kontaan. courage bi nga am. Mm-hmm. na na yow. Ah. yow yow maak yow dañu bokk benn yaay. moom moom yaayam sama sama yaay la. Ah, donc du coup bokk na yaayam bokk na ci responsable politique yi nga xamante ne. dañoo sonn ci parti bi politique dañ leen ko nampatal quoi. voilà <laughs> quoi moom it moom it mu nekk vraiment. voilà quoi un jeune qui il fait partie de ceux qui ont été reçus à hein, part. voilà lors des dernières et il faut que les Rufusquois, également comme il le dit. Hein, je mhm. pense que loolu c'est un mhm. idéal il faut que mhm. les Rufusquois jël donc les devants. que au premier plan non pas que nous nekk rek ñoo le leader bi ah, dans euh, un Sénégal quelconque. Euh, de 2024 ou de 2000 etc., peut-être un pourquoi pas. mais euh, mais dama confirmer parce que tay tey dafa euh, rapidement parce que Assane euh, ressources bi dafa am. terme de l'émission le dernier intervenant. voilà ressource bi dafa am dafa solo dafa am solo ci ci sur le plan international lay wax. parce que hmm. tay parce que deux mandats deux mandats am benn boulevard. Maurice Gueye bu ñuy def voilà c'est un peu paradoxal quand même. moo tax ay canaux il faut que ñu. c'était pas ça qu'il fallait il faut que population bi. mais loolu aussi c'est la la question du leadership quoi donc on tape pas assez sur la table pour revendiquer. donc pour l'intérêt du Rufisque c'est ça qui est dommage. non non non les choses vont changer inshallah. lépp dina changer. mais il suffit il faut que aussi la population nous aide. mais dina changer quand bu fekkee ne nit ñi dañu continuer di gérer ay prébendes kenn ku nekk tu es là pour ta chapelle pour tes gens pour tes nit. boo emploi ngay def ak alors que c'est sur un plan infrastructurel. le souffle la loolu daf dire, hmm. jeex. loolu commencer dire, parce que de politique bu njëkk bi ñi ko doon def. tey booy xool euh, nañ ci politique. xam nga tey boo boo jëlee. Euh, ah, tu penses que vent de changement bi amoon ci local yi mooy amaat euh, à venir. non mais ça c'est sûr. Ah. c'est ça qui va se répéter. <laughs> donc nous nous allons venir. nous allons venir aux affaires inch'Allah. nous allons la perspective. nous allons venir aux affaires et que on va changer notre ville parce que dañu bëgg gis Rufisque comme Dakar. ah ouais pourquoi pas. voilà c'est c'est c'est le voilà c'est le moment dañu bëgg dañu on le voit on, on le vit. en 2000 euh, en 2000 on va y arriver inchallah avec euh, voilà l'aide de tout le monde euh, ça va se faire. Malgré le gërëm di la sant bàyyi waaw euh, maa ngi maa ngi lay gërëm Moussa bu baax a baax euh, di gërëm waa Joko FM yëpp di. voilà suñu mbokk mi Ousseynou Thiam également mu ngi euh, yëglu moom itam di rafetlu émission bi ñu ngi koy jaajëfal. le temps que ñu terminé. voilà voilà di gërëm waa Tëngéej ñëpp ak waa Sénégal ñi nga xamante ne aussi ñoo ngi ñoo ngi may suivre ci sama page Facebook ci réseaux sociaux yi ci euh, ci sama koñ bi ma dëkk ak fépp ah bàyyiwuma kenn sama famille bàyyiwu voilà euh, euh, Fat Sow mami Adja tout le monde bàyyiwuma kenn Yeli voilà toute ma famille Aïda voilà bàyyiwuma kenn ah maa ngi gërëm ñëpp di leen euh di wax ne que en tout cas man je suis là pour le Sénégal. Je suis là aussi. Euh, oh, le aussi, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on ait une, conférence de presse pour véritablement donc, euh, informer l'opinion nationale et internationale de cette décision C'est déjà fait ça Oui, ouais, non, non, non, non, on va, on va, très, bien, on va très bientôt euh, organiser ça. Donc, nous allons tenir. un point de presse. Voilà, un point de presse euh, d'ici peu, mm -hmm. donc pour pouvoir informer à l'opinion nationale et internationale, euh, voilà. Mais en tout cas, li li ci ci xorom si moom Joko, le ko. c'est <laughs> ko ku ñëw nag ci topp. non mais attends <laughs> attends li les ñëw nag li ñëw nag mooy dàq. parce que ah oui mais tu as reçu des coups de fil. mais bien sûr j'ai reçu. Ah, ah. <laughs> kon kon loolu. je ne veux dire secret mais j'ai reçu beaucoup de coups de fil. voilà benn la rek gis nga li euh, il um, y a des éléments yo xamantene ne euh, mënoo leen xam tank demuñu. tout à fait. et et fait pour ils seront parmi ceux qui dirigent. malgré de la merci beaucoup El Hadj Makati Moki, yi moo invité suñu invité ci émission diacarlo politique Moussa Pouy nekkoon ci euh, waxukaay bi euh, gërëm leen sant leen ci teewlu bi Assane Diour mu ñu féetaloon ci également euh, si Djoko FM live ngeen doon ko suivre en direct si Facebook bu ngeen fa demee di en void li nga xam déjà moom moo di lii di véritablement l'essence et la quintessence donc de cette émission Rafet Loussen, ande ak Radio Djoko FM Ni les demain dimanche bu jot di leen jox dig daje dimanche ak beneen invité ba tey ci seen émission jàkkaarloo politique di leen ñaanal gu jàmm ñu yenu jàmm jërë ngeen jëf. jàmbaar ndigal bàyyi góor faal may sa bige kumba faal